waaw salaamaaleykum waa Sénégal donc euh, damay ñëw rek juste dem troit au bi comme ni ma ko doon defee par rapport ak sorti Ousmane Sonko bi nga xam ni def na ko bërki démb man mënuma accepter un gars toujours comme ni ma koy waxee qui aspir dirigé le Sénégal yow nga mën a génn nii les policiers dañ leen di fay cent seize mille ba cent quarante mille francs les grades ñu leen di jox trois cent cinquante mille ba quatre cent mille francs tey nit da ngay am bàmmeelu biir soo bëggee jiite dëkk doo doo doo nekk am ginaar sa biir muy kës loo xam wax ko parce que tey jii am na ay borom kër yoo xam ne tey jii ay policier lañ wala ñu nekk ay gendarme nekk ay om de loi ñooñu tey jii bu ñu sañoon seen njaboot xamuñu ñaata la ñuy fayeeku salaire dafa war a nekk kumpa mais mënoo aspirer diriger dëkk yaakaar ni wala nga nekk oposan nga yaakaar ni yow lu la neex rek war nga ko mën a wax du yoon keroog génn nga nga wax ni euh, s'il s'agit d'un match de nawetaan les jeunes sénégalais daf leen di jaral seen bakken te bu dee seen dëkk du leen jaral dara loolu incitation à la violence la incitation à la violence la donc nag je lance un appel di ko lancer le président de la république su fekkee Ousmane Sonko dafa nekk si dëkk bi war def lu ko neex si dëkk bi di wax lu ko neex si dëkk bi te kenn du ko wax dara ñu wax ñu ko parce que nit bu fekkee da nga taxaw di def incitation à la violence dañ la war woo déglu la parce que li mu def incitation à la violence la munoo jël ay xale naan leen s'il s'agit d'un match de nawetaan ngeen génn te bu dee seen dëkk doo leen génn loolu incitation la incitation mun ko weesu y a beaucoup de sénégalais yoo xam ne lu ndaw lañuy wax fii si dëkk bi ñu woo leen Ousmane Sonko nekk fi di jiñ nii ni sàcc di jiñ nii lu nekk Sénégal ñu bàyyi ko muy wax lu ko neex c'est pas normal donc je lance appel au président de la République ak le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye may profité ci occasion bi moom tamit di ko féliciter Aly Ngouille leen Ousmane Sonko ngeen yemale ko place am dafa ëppal beneen bi ci topp mooy may may féliciter le président de la république ci tey jii boo xoolee jamono yi yëpp ñun ñëpp ñu ngi doon taxaw di wax ci affaire culture tey gis nañ ni génne nañ ay fonds jox ko le monde de la culture donc je profite de l'occasion pour remercier le président de la république di féliciter tamit tamit parce que nit ki tamit tey ji su fekkee da koy critiquer su defee njàmbaar danga naan jàmbaar la donc ñoo ngi féliciter tamit le ministre de la culture ci tey ji le fait que mu taxaw dem taxaw ba xam nga li nga xam ne ñun moom lañ doon laaj mu xeex ba ñu jox ko donc ñoo ngi koy féliciter di ko encourager merci beaucoup.